voilà mbokk yi ñu ngi fi nag euh, ci euh, fi nga xam ne mooy euh, porte bi nga xam ne mooy jëm ci monument bu mag bi nga xam ne mooy Wakam mooy monument de la Renaissance ñu am mbégte ak contentement ànd ak yéen kon ni ñu ko defee rek saa ñu tàmbalee tey nag mooy ajjuma bi nga xam ne moom mooy suñu cinquième ajjuma ci semaine bi xam naa ne nag incha allah bu ma tur altine danañ dellu fa buur de kon ak fa xam ne mooy suñu kër su ko defee nag mbokk yi ñu xamal leen ne teraanga Sénégal ngi nii Euh, oto baa ngi ne salon baa ngi nële gis nga salon bi euh, seen jiili salon baa ngi nële ah yéen a koy gis ah salon baa ngi nële chambre couche chambre à coucher na ngi table à manger baa ngi nële maanaam lépp loo xam ne bi ñu fi commencé wax ba léegi ku ne xam nga fan nekk fu ne nii soxla si dañuy wax nit ñi <laughs> chambre à baa ngi ne soo ko wanee rek ñu xam ne chambre à coucher baa ngi foofu léegi nag. am na tamit yeneen affaire damay bàyyi yow nga développé teranga Sénégal lan ak lan moo ci am bu weesoo li nga xam ne mooy loo mag yi waa dëgg la Abou Bilal comme ni nga ko waxee boo génnee ci loo mag yooyu teranga Sénégal ba tey yemul foofu indil li nga xamante ne bi mooy parure en or ko macha allah ngalam pur la li bëgg ku ko am moom nga bëgg ku ko amul tamit moom nga bëgg indil ñu fi aussi li nga xamante ne bi mooy ay ay iPhone 11 taakal moom tamit xew macha allah ci jamono ñëpp moom la ñu soxla kon nañu woy ba tey di dugg ci suñuy ci yooyu di ci woote bu baax a baax indil ñu xam ni Dakar Paris Dakar billet avion la. Dakar Paris Dakar en même temps concert Youssou Ndour ba muy amal tamit ak waa Super Étoile ba tey mun ngeen cee bokk ba tey am nañ fi aussi ay enveloppe yoo xamante bi mi ngi commencé ci vingt cinq mille cinquante mille ba deux cent mille francs. te te boo duggee woote rek ah. te saa yoo wootee actuellement nii am nga am nga li nga xamante mooy cent mille francs comme ni nga ko waxee suñu oto bu yaa ñi

628 99 90 ba tey nag pour yéen nag yéen moom pour yéen kese moom moo moo tax mu jóg macha allah loo leen gën di woote dañ leen di may nee naa leen du concours may la cadeau la yoo xam ne dañ leen koy jox pour fin d'année pour ngeen bokk ci nag bu leen di hésité da di woote yéen daal ku ci bëgg rek da ngay di woote nga daal di nga am ci li nga xamante moom la leen teranga Sénégal indil Abou Bilal li nga xamante ne teranga Sénégal dañuy daal di dugg ci teranga Kouthia Show ah, oh, ah, neexul waaye Abou Bilal nga ñii ba ñu jàppee ba tey bàyyiwuñu ñoom ñoo la xam nga ne dañ laa indil ay gaamu seetee plus pour jigéen ñi ñu jóge fa nee nañ déedéet fi nekk na yéen a moome vent muy góor ñi ñu nekk ci jamono seddaay buñ nee seddaay nag ko nekk xam na ne yaram day weex lépp lu bokkul ci yaram day daal di génn ak diw yi ñu leen indil macha allah da ngeen koy diw seen teint day set li nga xamante mooy doo leen ko am gel de bain yi lu mu fekk seen da koy daal di dindi indil leen li nga xamante ne mooy savon moom tamit macha allah picc ak tache raxas seen i teint macha allah ba mu doy waar indil leen fi ay déodorant yoo xam ne dafa mucc ayib seen i poqutaan da ngeen di def daal di dégg jàmm indil leen fi vaseline te ku nekk xam na ne vaseline dafa baax ci jamono seddaay ba tey indil leen fi ñoom parce que bi ñu ñëwee pour jigéen ñi pare tey dañoo ñëw ne góor ñi ñoom ñoom moomee vent damay daal di dugg ci li nga xamante ne bii mooy warga Achoura ku nekk xam na ne dafa xew ci jamono te xew te xew a xew Abou Bilal dañoo nekk ci jamono seddaay te buñ nee seddaay ne loo xam ne nii sa yaram day sedd man damaa ne fi mu nekk nii indi yi bu muy fay dee leen togg ba mu ñor daal di fay teg seen baraada ku dugg si ngeen koy xelil di dégg jàmm ngénte yi tuur yi kër gi saal salon yi ku bëgg a waxtaan da ngay jël li nga xamante ne mooy warga assura te nee naa li ci gën a neex boo añee mbaa nga réer heure bu nekk mën nga koo naan te boo ko naanee da lay digérer ba tey ñu indil ñu fi li nga xamante ne bii mooy jasmine bi ni ngay utiliser bi aussi tamit noonu ngay utiliser bi nga xamante ne mooy warga jasmine kon dama naan jaaraama suñu sponsor yi yaan yi kenn du ñoom boo leen di seetaan Kouthia Show seen xol di ñaq seen i bën di ñaq c'est eh, bu fekkee ne amul ku nekk bi ñu ñëw directement ci programme bi nga xam ne mooy programme Kouthia Show dëgg la bu fekkee ne Fatima am na ku ne ci ligne bi mhm. ñu daal koy ibil mu daal di xool ban région lay dugg dëgg la ñu yëg am na ku ne ci ligne bi waaw amul ku nekk ci ligne bi kon nag mbokk yi euh, euh, Mati waaw nga tàggatoo waaw ma bàyyi leen téléspectateurs yi rek ngeen daal di doxal ak Kouthia Show mu daal di indil leen show bu saf sàpp ba ci kanam kanam kanam jërëjëf jërëjëf ñu fàttali nag euh, maanaam ci produit yi ki gën a tuuti maanaam bi gën a tuuti soo na rek jàppal ne sa 100000 francs jot nga mun nga am nag plus mais xamal ne munoo am moins de cent loolu moom mooy wane ne mbir mi du ay caaxaan waaye mbokk yi xam nga semaine bi yëpp tey la ajjuma maanaam tey nañuy tëj semaine bi boo xoolee actualité bi yëpp ci Cissé la nekkoon soo xoolee coolu yëpp ci Cissé la nekkoon soo xoolee coolu yëpp mu ngi ci affaire courant bi soo xoolee cool yi mu ngi ci affaire ballon door bi dem nañ nag ba ci cëppaandawu ajjuma mooy fin de la semaine weekend bi daa day ñëw ndax weekend bi administration du liggéey Macky Sall nag nee na am na lu ko metti waaw Macky Sall nee na am na lu ko metti ba ci kanamu yàlla parce que Cissé Lo ni muy doxalee moom il faut mu jël ay disposition Cissé Lo tamit am na loo xam ne moom tamit metti na ko moom tamit dana ko ñëw wax Moustapha Niass euh, euh, Ablaye Wade incha allah moom tamit dina ñëw taxaw wax le diggante moom Moustapha Niass jàmm mu dina ci am seen diggante dana ñëw ci ki nga xam ne tamit euh, moom mooy euh, Cissé Lo ñëw ci euh, Macky Sall ñëw ci ki nga xam ne nag moom laa wax léegi su ko defee ñu daal di koy tëj programme bi daal di ñu ngi may wax ne am na ku na ci ligne bi allo ku ne ci ligne bi allo. Fatima maaleykum salaam. waaw sama sëñ waa sëñ bi nan nga tudd. man El Hadj Ndiaye. El Hadj Ndiaye foo ñu wooyee. kawla kawla nga ñu wooyee. waa xam nga Sénégal am na fukki région ak ñeent quatorze régions. waaw yow ban région nga bëgg dugg pour xool fa teranga bi Kaolack nga jëm wara a Fatick war a Kédougou war a Dakar Ziguinchor Matam Kaffrine Sédhiou foo jëm. Euh, Tamba. yow nga dëkk <laughs> Kaolack jëm Tamba waaw maa ngi lay Tamba. Tambacounda ah. Tambacounda waaw. lan moo tax nga bàyyi Kaolack dem Tamba. dama am euh, anecdote da nga fa am lan. anecdote anecdote ah dafa am lu mu sa foofu waaw dama ko mosoon ay jamono ah da nga doon Tamba ay jamono waaw loolu moo tax quoi xam naa nekkoon fa star ci nawetaan yi <laughs> ndax ñoom ci la dëkk dem Tamba enveloppe baa ngi nii maa ngi koy génne uh-huh. laa ilaha illallah sawaay uh-huh. allo sawaay na nga tudd man Alaaji Alaaji Ndiaye am nga soxna war a soxna. non état amagoo soxna nag. kon nag préparé uti soxna parce que enveloppe bi ma lay jox. njëgu ah. may bu njëkk xaj na ci. baas xaj na ah. ci. chaise xaj na ah. ci. jingeer xaj na ci. ak meew xaj na ci. ak lépp xaj na ci laaj ma ñaata nga am. yaa ngi may xool. waaw maa ngi ni waaw. maa ngi <laughs> deux cent mille francs CFA. ñeent fukki ah, junni tàccu leen ko région de Tambacounda offrir na suñu waa ji deux cent uh-huh. est-ce que xam nga ne ba tey mun ngaa gagné oto bi ah est-ce que xam nga ne mun ngaa gagné chambre à coucher bi ah bon deux cent mille yi jeexagul de yow da ngay bokk ci tirage au sore bi am dimanche mun nga gagné oto mun nga gagné chambre à coucher salon mën nga gagné tamit frigo mun nga gagné tamit cuisinière yow daal sawaay mhm. ñëwal jël sa deux cent mhm. mille toog xaar dimanche mhm. nga bokkaat ci sa bi lu leer laa la wax d'accord inchallah inchallah sa deux cent mille gi nii may delluwaat waa Tambacounda inchallah rabbi bien voilà ok merci man xaalis bii ñuy teg fii ak man dama ko wóolawul dëkk bii man da yàlla bu xaalis réeree plateau Kouthia Show parce que da fii xam naa ñu jaaree fi ne moo ko sakkal pexe parure oori bu réeree ñu ne ay jéegam la ko jox ndax ñaar la yor téléphone yi bu réeree ñu ne da koo jaay ndax ci loolu la nekk di tekkatu dil la boobu bu oto bi déplacé woo ñu ne da koy waaj a puus yóbbu seen kër man na dama xam ñi may liggéeyal xam naa dañ maa wóoluwul waaye man maa leen ñàkk gën a a wóolu moo tax seen xaalis bii ngeen teg fii ak seen produit yii billaay wallaay taala yàkkam ci naa delluwaat sama kër tàggoog lii nga xam ne teraanga te teraanga bën fang fang ngeen ko def nag te man yoruma dara bu ma fi roccee cent mille sama der yàqu nit mun na koo sàcc ne ku caa ko jël sama der yàqu waaye àdduna amul solo loo fi gis dafay jeex naa leen xamal dara nag yow ngeen xam ne des fois ngelaw gi dina génne. dina taan maa ñu ngi sant yàlla bi ñu yàlla defee doomu aadama tey bu ñu yàlla defoon li nga xam ne moom mooy télévision mun nañoo daanu toj boo ñuy tasare moo taxit yàlla suñu bopp ñu ngi koy sant bi ñu defee li nga xam ne mooy doomu aadama bu ñu defoon tey écran kon tey ngelaw gi moo ñu daanal waaye ñu ngi sant yàlla bi ñu defee tamit nit ndax mënoon nañu def li nga xam ne moom mooy gestionnaire ñu daal ñooy sàcc yóbbu ñu su ko defee ñun <laughs> waaw may may émission bi nag maa ngi koy may téer bi nga xam ne moo wommi mami Mati Samb Mati Samb dañ koo wommi ci ay mbasin ki ko wommi nag mooy Ah, ah, ah, ponkalum sàcc bi nga xam ne xam naa mu may seetaan yow Ousmane gis nañ la parce que ay caméra de surveillance moo fa nekkoon dawal nga indi affaire bi ndax boo ko indiwul danañ ko dugal ci réseaux sociaux yi ndekete mosoo xam ne fi ngay liggéeyee am na li nga xam ne moom mooy li nga xam ne caméra euh, surveillance dootoo ko defati yow bàyyi rek yow ñu jox la liggéey nga nga nga tëyër ngay rawale yàq mais caméra de surveillance gis na la bu yàgg lépp jël nañ ko da nga ko xamuloon ngaa ka rek léegi na mbokk yi luy sama yoon sax ci coow li man dama cee bokkul <laughs> maa ngi am mbégte contentement di gërëm képp koo xam ne kilifa diine nga nekk ci réew mi di la ñaanal fan bu gudd a góor yaram jiite nag di yàlla suñu borom ak Seydina Mohamed paix ñaari waajur waaye di sant euh, kilifa yi nga xam ne ginnaaw yàlla yonent bi ñoom ñooy suñu lumière ci yoonu àdduna bi njabootu alaaji Cheikh Omar Fouti Tall ñu koy ziar sëñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général euh, général des Tidianes ak Pape Malick Sy mi xam général des Baye Fall sëñ Cheikh Ahmed Tidiane bu Medina Baye sëriñ maam Abdoulaye Thiaw ca Laayeen ya Cheikh Ahmed Tidiane xalifa Niass ca la woon a Niassène imam Cheikh Cissé nekk ca Medina Baye sëriñ Cheikh Bekay Kounta xalif général de Ndiassane sëriñ Euh, Cheikh Tidiane Seck bu Thiénaba Thierno Bassir Tall xalif Omar Yene ak doomi Cheikh Omar nuyu naa ko Serigne Mouniru Jigéen xalif Serigne Amadou Baro Jigéen Chérif Khaya Aydara ci Nimza Serigne Mohamed Lamine Ngom nekk ca Paal Cheikh Ahmed Tidiane Ba nekk ca Medina Gounass Serigne Youssoufa Mbaye xalif bu Mame Cheikh Mbaye Serigne Mansour Cissé xalif bu Pire Serigne Madani Tall di xalif Thierno Mountaga Tall njabootu Cheikh Moussa Kabara Cheikh Moussa Cissé Njambe borom daaru sëriñ Fallou Mbacke yàlla na fi yàgg te wér sëriñ Fallou Mbacke docteur sama sëriñ sama xarit sama wólëre moom ak jëwriñ Moustapha Sène ñu leen di nuyu alaaji Thierno Samba Sa Morabi a Fouta ak góor gi Samba Ndiaye président euh, représentant xalif général des Tidiane foofu nag ci Ziguinchor di nuyu tamit imam Fansou Bodian xalif général de la communauté euh, Joola nekk foofu nag di nuyu tamit sëriñ Cheikh Saliou Mbacke xalif sëriñ Saliou di am mbégte contentement bu baax di nuyu Thierno Bokar Alpha Niang borom xecc gi yal defal jàmm di tamit ki nga xam ne moom mooy euh, cardinal Théodore Adrien bi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram moom nag nee mboolem chrétien nañu fàttali euh, bés mooy nañu bu euh, Popenguine ñu leen koy ñaanal nag moom ak Benjamin Ndiaye yal defal jàmm may leen fan bu gudd ci barke yonent yàlla Yesu Christ borom xel mu sell mi Serigne Abdou Karim Mbacke Serigne maman Mbengue nuyu nañu ko ak Modou Fleur la suñu marraine la yàlla na fanam Serigne Mansour Sarr chef religieux ca Budi di préparer gàmmu international bu Budi moom tamit ñu koy ñaanal yàlla may ko fan bu gudd moom tamit di ñaanal suñu yaay yàlla may ko fan bu gudd di Adja Kine di doom ci Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum xalif général la woon yàlla leeral bàmmeelam waaye di nuyu sëriñ Babacar Abdou Aziz Sy alaaji taf si saaxo Iliman imam ratib bu Banjul alaaji alaaji Maska ziar nañ ko alaaji Ala Mbaye bëgg mbaxal sëriñ Gora Seye Pape Amad Ndiaye ak Maodo Niang ñu ngi leen di ziare di nuyu tamit góor gi Ablaye Niang jànkatu xasaat bu mag la nekk ca Ndar géej am mbégte contentement bu yaatu ci Chérif Abdoul Moutalib Tidiane sët la si Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi koy ziar sëriñ Mouhamad Moustapha Sow Waliou Kamin di euh, xalif bu maam Abdoulaye Sow ca Dagana ziar nañ ko alaaji Mouhamadou Aysata xalif bu Guet Ardo ñu ngi koy nuyu ak ki nga xam ne nag moom mooy euh, suñu xarit suñu soppe nekk porte parole ba ñu ngi koy ziara aljuma euh, aljuma ba moom tamit di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram di ziara tamit njabootu alaaji Mbacke Tandian alaaji Mbacke Tandian alaaji Omar Tandian ak Baye Niass Tandian ñu ngi leen di ziar di nuyu tamit Serigne Massamba Kala Dramé euh, Massamba Dramé xalif Serigne Maktar Kala Dramé nekk ci Dramé ndimba nuyu nañ ko di am mbégte contentement bu mag nag ci alaaji Cerno Hamdu Aaw xalif bu Thelaaw ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu waaye di ziare nag njabootu alaaji Cheikh Baba Euh, Jong fils de Alaaji baaba Jong muxaddamu Seydi Hadji Malick Sy rabiyallahu taala anhu nekk ca Podor quartier Ndiobène ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit bu baax ki nga xam ne nag suñu xarit la di Alaaji Ousseynou Diop nekk ca Birkama bëgg baay ak imam Mansour Seck nga xam ne nag tamit professeur la waaye imam la ca yëmbal ñu ngi koy nuyu ak Cheikh sëriñ Cheikh Baara Amar ziar nañ ko di ziar mbégte contentement bu mag ci ñi nga xam ne su suñuy soppe nañu waaye ay kilifa nañu rawatina nag di nuyu Thierno Mouhamadou Amadou Li xalif bu Daaro Kaba ñu ngi koy ziar di am mbégte contentement bu baax ci ki nga xam ne mooy ajaratu Ndey Sofi Taal bu Thierno Muntaga Taal borom Alpha Voyage ak Chérif ay dara chef de village bu euh, Nimzat Alar kilomètre 24 route 2 barrage de Ndiama yal na yàlla gudd fanam mbokk yi kilifa diine yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla may fan bu gudd ak wér nañu leen di wormale nii yal na leen yàlla gën a wormal ndax nii ginnaaw yàlla yonent bi kilifa diine yi ñoom ñoo fi nekk ñoo ñuy teg ci yoonu siraatal mustaqiim bu fekkee ne da ngay def naka sudul noonu xam sa bopp dëkk ci tooñ yow doo doo doo def naka sudul noonu da ngay dem làqatu ci koo xam ne yàlla du ko rus te ginnaaw yàlla yonent bi nii nañu yàlla mën a rusee pour ñu dugg àjjana moo tax ñu ñaanal leen ñu fan bu gudd ak wér gu ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon du àdduna yal na yàlla xalaat dina gën a kawe mbokk yi euh, temps yi xam nga la moo est-ce que xam nga ne président Macky Sall mer na mer boo xam ne soo xoolee kanam gi sax xar kanam bi kanam bi est-ce que sax li ngay gis du gën a nuroo gaynde ka Macky Sall Macky Sall ñetti fan yi nelawul xolam dafa fees a fees am Macky Sall rongoñ sax tuur na ko parce que li Cissé Lo wax da koo metti ñu xooli nag Macky Sall bu ñëwee jàkkaarloo militant yëpp la woo nag ñëpp la woo ca pale ba ne leen kaay leen ma wax la nag il est l'heure de parler il est de sonner la vérité ñu seeti Macky Sall jabo lam tooro ari biye sall so alle jabo lam tooro ari biye sall so alle jabo Macky Sall ey biye sall so alle jabo lam tooro ari biye maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur sa sant am na yoo xam ne dootuma ko nanguti parce que y a trop de désordre dans ce pays commencé désordre boobu citoyens yi laa doon xaar ñu def ko waaye sama waa parti ñoo koy doxata loolu neexuma eh, soxlu ma ngeen tàccu ma parce que su ma leen wax li ma naqari soxlu ngeen may tàccu discipline bi ma bëgg ci parti bi laa bëgg ngeen doxal ko normal man du ma seen morom ah. am na ñoo xam ne mën nañu fi bàyyi ñoo ma mag waaye man du ma seen morom ndax may seen président kon du ma seen morom dootuma nangoti koo xam ne mais mais mais mais qu'est-ce que ça veut dire lan mooy lii ay député yoo xam ne dañuy seetaan Pod et Marichou ci biir assemblée nationale qu'est-ce que ça veut dire Pod et Marichou ay député assemblée national yoo xam ne sénégalais yi ñoo leen fal pour ñu dem assemblée nationale pour joytu leen li nga xam ne mooy seen problème ngeen dem di seetaan pot ay maraichou qu'est-ce que ça veut dire pot ay maraichou pot ay maraichou ponkalu maam yàlla sax sikkim di toog di seetaan pot ay maraichou lan mooy port ay maraichou lan mooy pot ay maraichou député boo xam ne da nga war a toog si diplôme da nga war a toog di xool askan wi war a représenté askan wi war a xool le président de la république Macky Sall li mu ñu doxal ko nga doxal ko mais nga toog di seetaan Pod et Marichou ñu ne dem na waaye am koo xam ne dafay taxaw ci assemblée bi di xas ay ministre loolu moom dafay jeex ma bàyyi kenn koo xam ne dafa nekk ci man toog di joxe le mauvais exemple dootuma ko nanguti ay magam jëma toog sax sa sikkim di seetaan Pod et Marichou lan mooy Pod et Marichou yow bu fekkee ne da ngay seetaan Pod et Marichou nga bàyyi bu dem sa kër seetaan Pod et Marichou mais ñàkk fayda ba pare dem toog ci assemblée nationale di ponk lu mam yàlla dent ñaari jabar sax sikkim am ay doom di seetaan Pod et Marichou mais luy Pod et Marichou yow nga war a lijjanti Sénégal lu ñu fexe ba génn ci li nga xam ne ci la ñu nekk jafe-jafe yi nga xam ne bés bu nekk askan baa ngi koy am te ñu fal leen ngeen war a toog pour revendiquer loolu ngeen di seetaan pot et marchou yéen a ñàkk fayda dama seetaan d'Artagnan Arabis seetaanoon leneen loo xam ne sax da ngay ree ba tas mais ngay seetaan pot et marchou moo ma ngeen di tàcc di jéem a yërëmtalu fekk yen ñëpp seen boppi dara nekku si man damay rus sax di nekk nekk ci APR léegi lii daawoon am PDS PDS ay nit ñu am xel ñoo fa nekkoon ñoo xam ne dañ doon bañ amatu leen benn éducation civique amatu leen benn yar envers man da di def loolu neex ci parti bi ñu ma koy wax ma koy dégg ba pare journaux yi di ko relaté internet bi di ko wax ba pare ngeen toog di ma xool di xuj seen bët yi li ma leen dénk su ma neexee dama koy nangu parce que du ma nangu te benn député toog ci télé bi ñu koy wane nga seetaan Pod et Marichou man léegi da nga ne seetaan Pod et Marichou man dinaa dem sax gis ki nga xam ne mooy teg Pod et Marichou ñu teggi Pod ay Marichou su ko defee dootul xamante Pod ay Marichou fan lañ njëkkee ak fan lañ mujjee lan mooy pot ay Marichou man ngeen bëgg ñàkk loo fayda man ñu ne samay député dañuy toog di seetaan Pod et Marichou debout assis redebout re-assis je suis sage à ma place les paroles du président c'est la réalité discipline debout assis maa ngi bàyyi ba kenn waxati fi mais yéen sénégalais ngeen dem assemblée nationale nekku leen di lijjanti li nga xam ne moom mooy plan budgétaire yi économie Sénégal waxtaan ngeen di seetaan Pod et Marichou eh bu ma ko woyal ba ma woyal ah sénégalais yi bàyyi leen fal leen ba pare amu leen lan loon def seetaanu leen ay jàng seetaanam leen ay gàmmu sax ñu ne xëy na xelam day dem ci yàlla ngeen seetaan pot marché sama woy yoon nañ ko arrêté dégg ngeen parce que bu may wane kanam bu leer ngeen yaakaar na damay ree retaanu ma de parce que nag tey nag dinaa leen won kanam Macky Sall dëggantaan Ndiaye parce que boobu léegi maa ngi nax maa ngi naxtaan ak yéen di leen won kanam bu clair ngeen na ki il est Moussa nuyu nañ ko di ko ñaanal fan gudd ak wér yaram di ko ñaanal jàmm waaye tamit euh, di ziare Cheikh Mamour Insa Diop Baye Mamour Insa Diop bi nga xam ne nag samedi le 7 incha allah suba à partir de 16h waa jamiyatu bi yëpp nag ñu ngi koy préparé nag section bu France fas yéene nag euh, à son honneur daal di koy euh, wanale ñi nga xam ne nag wax dëgg yàlla mbokk taalibe yu ko bëggoon gis yëpp ñu dalee ci France ñi Italie ñi Suède ñi Allemagne fu nekk ni dañ fa jógee incha allah bés baa ngi noonu nag muy ëllëg samedi le 7 décembre à partir de 16h ñuy wax nag ñëpp nañ dem ca espace Milinda 195 route de Saint-Leu euh, nekk nag ci sur scène ndax bés bu la boo xam ne wax dëgg yàlla waaliyu kaamin bi di Baye Cheikh Mamour Insa Diop bi nga xam ne nag wax dëgg yàlla dafay joxe éducation islamique taalibe mi macha allah neex nañoo ràññee ci yar ak teggin waaye tamit ci discipline moo taxit ñëpp nag daal di koy nangul li ga xam ne moom la ko yàlla def muy Baye Cheikh Mamour Insa Diop yal na yàlla gudd na ko yàlla taxaw yal na yàlla doolu sac bi nga xam ne moom la am yal na ko yàlla suturaal yal na ko may fan bu gudd ak góor gu yaram ak mboolem taalibeem ñu ñu baax ngi nii waaye di nag ci ndigalu xalif général de mourides la fédération des daayira ta za wuddu si xar bi nga xam ne nag euh, diwaanu Kamal ki ko organisé di sama xarit di Serigne Khadim Mbacke Kamal borom 444 ibnu Serigne Sibiru Mbacke moo koy amal ñaari fan yi di le 13 ak le 14 décembre 2019 ca waay amoo 4 boulangerie. eh wuy ma ña nga bi nee na 4 xar ak 44 ginaar. pour waa Kouthia Show 4 xar ak 44 ginaar muy 444 4 xar ak 44 ginaar mais benn xar bi kenn am na kenn koo xam ne moom rek mën na koo lekk <laughs> waaw waaw benn xar bi am na kenn koo xam ne mën na ko lekk 40 ginaar yi am na kenn koo xam ne moom rek mën na koo dóor lu leer laa leen wax waxuma lay wax caaxaan de lu leer laa leen wax moo tax nag bés boobu le 13 ak le 14 décembre ñu ngi koy defee ca 2019 invité d'honneur bi xam nga kan la fat invité bi nga xam ne waa Kouthia Show moom la ñuy yónni ñaar ñii la ñuy yónni Fatima Naar nañu délégué mu dem ak ki nga xam ne mooy Jéema Fatima Jéema yaa ñu fa représenté dégg nga soobee <laughs> waa léegi ey or toogal or toogal léegi nag teranga Sénégal gii avant may dem ci Cicelo damay ibbi téléphone bi dama dama bëgg dugal trois personnes rek trois parce que comme que fin de semaine la trois personnes rek su ko defee euh, ñu mun a xool daal pour pour pour weekend bi neex waaw am am na ku ci ligne bi allo na ci ligne bi allo. allo waaw. allo waaw. waaw kooku àll noo tudd. Marie Hélène Ndione. Marie o fogole séeréer. <laughs> eh séeréer la a <laughs> eh, eh, eh, <laughs> ah, ah, ah, ñaaja o ndig rek. o ndik rek. ah o fogole séeréer sibna nuun ne nafa nafa xa tibna taxun a naka ngaddaale. ma ne Hélène. Hélène. ban dëkk nga may woowee nii. maa ngi fii ci. ah Sicap Mbao Sicap Mbao. fan nga dëkk ci dëkk ci dëkk àll yi fan nga ci dëkk. ci Ngoye laa def Ngoye. ah. Ngoye booy booy dem ci. waaw ah, ah, ah, na taxu na na faaxa ndool ndool ke léegi léegi xam nga nuy def. <laughs> da may ah. wax ci région yi fan nga ci bëgg a dugg ndax Fatick nga jëm wala Thiès nga jëm wala Ziguinchor wara sa mbokk kal yi ah, Matam nga jëm wala Kaffrine wala Sédhiou wax ma fan nga ci bëgg a jëm. Matam. Matam. waaw ah, séeréer bu dem fekki xaal ah. nga jëm Matam. waaw foo laa a yow mais yow ma laaj la yow yow tu es marié nga. <laughs> waaw. waaw kay sa sa borom kër na la tudd. Marie na la tudd. <laughs> ah noonu la tudd. <laughs> waaw kon monsieur <laughs> madame moom ci boppam ah. waaw maa ko ibbi. une deux trois. Matam o fogole séeréer sib na wóoy bi nafax nafax natax na tig na doxum Marie Marie Hélène waaw Marie Hélène da nga am doom waaw doom yu góor wala doom yu jigéen am am nga góor am nga jigéen wuyu xam nga TFM lan TFM Teranga Sénégal lan la la may ah. may na la ñeent fukki junni yoo xam ne ay cadeau <laughs> du xaalis de eh ah, ah. ay cadeau la yoo xam ne chèque la maanaam mun nga ci ah, jënd waa chèque la moo xam ne valeur bi egg na deux cent mille muy muy xoolal benn benn sek ñaari sek ñetti sek ñeenti sek juróomi chèque juróom benn juróom ñaar juróom ñett maanaam am nga huit chèques yoo xam ne benn bu nekk juróomi junni lu la neex nga jënd ci du xaalis de. <laughs> xaalis segu cadeau la. Ah, waaw njëgu cadeau boo ko joxee dañ lay jox ay cadeau yoo xam ne egg na ci njëgu deux cent mille pour sa doom yi ah, waaw waaw sa yaram ah, ah xanaa xaalis moo la gën a loon amoon xaalis boo amoon xaalis moo la gënal waaw waaw yow perte ko de xam nga tax perte ko parce que yow jàppal ne mën ngaa gagner salon de coiffure non ma astafurlah euh, chambre à coucher mun nga gañee salon mun nga gañee oto bi mun nga gañee tamit téeméeri junni dimanche mun nga gañee tamit xool pariru or ak iPhone ah. mun nga waaye oto bi yow bul découragé de am nga sa cadeau ah, pare sa doom bi bi baa duñ laaj cadeau o fogole séeré sib na noon teg na faaxa yaa ko def dem bàyyi sa mbokk yi ngi dëkk Fatick dem di dugg ci dem di dugg ci waa tukulóor yi baax na ci yow ñaw ah. waaw baax na góorgóorlu rek beneen yoon doo bàyyi say mbokk baax na marié leen wax na baax na a na ah ne faa yoo dëgg dëgg. man dinaa dee Fatima jox ma keneen wara aañu ah, dem léegi na xale yi xam nga kuy seeti Cissé Lo waaw coow li ngeen dégg fii yëpp Cissé la ñu seet ñu Sitelo dëgër fit ay yaa ku dëgër fit Sitelo dëgër fit ay yaa ku dëgër fit Sitelo dëgër fit ay yaa ku dëgër fit Sitelo dëgër fit ay yaa ku dëgër fit Sitelo dëgër fit ay yaa ku dëgër fit Sitelo dëgër fit ay yaa ku dëgër fit Mbayloo dëgër fit kontaan naa ci yéen na ngeen def ma ne man maay Cissé Lo jantal paa man maay Cissé Lo yoobi tere nelaw gouvernement bi ma ne man duma góor buy gaaruwaale est-ce que mos ngeen ma dégg ma gaaruwaale man su ma muus mattee dama naan muus moo ma matt su ma xaj mattee man a xaj moo ma matt waaye xaj du ma matt ma ñëw ne golo moo ma matt déedéet ki fi jaar léegi di wax du ma sax tudd moom xam na man xam naa man xam nga lu may xaar ñu ne ma Cissé Lo lii nga wax waroo ko wax wara lii nga def waroo ko def ndax man du ma tapet man parti bi bi ñu koy créer injustice moo tax ñu créer ko président Macky Sall waa PDS dañ ko toroxal bëgg ko dàq assemblée ñun ñu bàyyi suñu mandat topp ko ba ñuy dem Tambacounda ci àll bi am na ay transhumants yoo xam ne tey am ñu post yoo xam ne ñu ngi woon ci Ablaye Wade di ñu saaga dama ne parti bi moom président Macky Sall na fàttaliku nitu démbam mii te xam na tey warul tax mu jàpp ay nit ba muy commencé kenn topp ko ñun ñoo ko gëmoon bàyyi suñu ay soxna bàyyi suñu ay doom nekk ci àll bi tey mu jël ay nit ñu tekkiwul dara ñuy guuxi ay lex maa ko wax li may wax duma ko daw parti boo xam ne jigéen rek na ñuy bëgg mooy doxaankat yu mag yaa ngi fii ci parti maa ko wax ay lu may daw waaye bu fekkee ne moom dafa may wan ne carrément ne dama ko li ko def neex ko na taxaw wax ak man ndax man du ma tappe man waa Dakar ñoo ma bëgg te incha allah élection yi damay dem de gisuma ku may téye dem bokk ma ak benn damay dem ak sama bopp Macky Sall li ma ko waroon defal defal naa ko 300 millions laa génne ci campagne présidentielle ana nañ ma laaj xaalis bi foo ko jëlee man duma ñi nga xam ne dañuy jël ñaari junni di ko def ay bugaade waaw xaalis CFA bi changé nañ tur bi léegi tuddutul CFA soo demee génnee Côte d'Ivoire dañ naan ana Bougazelli yi xam nga ne loolu ñaaw na député bu ñu tuddee xaalis ci lan maa ko wax injustice rek moo am ci Sénégal maa ko wax du yoon munoo jàpp kuy jël xaalis di ko trafiqué nga dugal ko fi nga dugaloon fa Sall jël koo xam ne da doon xeex askan bi di ko yóbbu ci toj ko suñu jéeme yi ak agresseurs yi Guy Marius Sagna ngi ni fan la nekk am na loo xam ne nit bu jotee dëgg da koy wax maa ko wax maa tey man duma ma yambar yi nga xam ne dañuy jël sa di maral tànk Macky Sall du ma ko yaakaar ma maral la sa tànk xanaa da ngay waay jëndkatu bànneex yi ngeen doon ay député toog ci assemblée bi au lieu ñu xool liñ leen ngeen di seetaan Pod et Marichou yebaate weer Pod et Marichou député relom mooy fexe ba jéem a toogal askan bi waaye di seetaan Pod et Marichou xam naa ne sax Pod et bu jeexee du ci yem ci yenn film yooyu lay jëm film bànneex yi ñoom ñëpp ay seetaankatu ma xam leen ñi ma xam maa ñoom nekk xam naa leen ku ko ci weddi xam na seetaankatu film bànneex rek parce que pot ay marisu bànneex la yenn saay pot dàq di jëm sax sikkim di seetaan pot ay maris ñàkk fayda waaw loolu laa indi woon tey rek di xaar na ku tudd sama tur président Macky xam na sama numéro xam na numéro na ma woo man ragaluma ñàkk de man dama am ba pare faalewuma kenn sinon way bi nga doon way léegi neex na way leen ko ba xool maa tay maa tay maa tay ma tay ma tay ma tay ma tay ma tay ma tay ma tay ma tay oh, la belle voiture rouge est oto bi nga xam ne nag euh, dimanche bu nekk mun nga bokk ci kii gagné oto bi oto bi góoróoloo la dama bu la découragé soo xasee bu dugg jàppal ne ba tey mun ngaa gagné oto oto bi nag oto bi dafa garaaw da ngay laal rek mu ubbeeku <laughs> da ngay laal oto <laughs> oto <laughs> ah madame ASP jaara moo yor oto bi vraiment sa solo bi tey xam naa ne euh, bu fekkoon bu kii la yaakaar na ci ASP nga bokk mais Teranga Sénégal la ay ca jëlal waa kon jaara yaa ngi ci oto bi léegi daal maa génne ci oto bu yanj bii nii maa ngi lay nuyu di la ziyaare la jox sa wàccuwaay ba tey waaw waaw ñu ñëw li nga bu yanj bii nga xamante ne nag boo ko bëggee gañe da ngay woote ci suñu numéro ci suuf oto bi tubaar fakalla 88 628 22 22 88 628 76 76 wala 88 628 14 14 en même temps da ngay envoyé say SMS TER au 22 025 25 waaw am ngeen mille chance si gañe gañe ci li nga xanaa yow boo ko gañoon kawoon nga jëm waaw ah, si yoon bi nga seetaale bu baax teranga Sénégal da moom lii la fi nekkee waaw teranga Sénégal moom Fatima def naa dugal kenn ah? bu fekkee am na ku ne ci ligne bi war a na ku ne ci ligne bi waa chambre à coucher bi euh, xaar ma xool chambre à coucher bi bi moom wax dëgg yàlla ku fi tëdd gént rek ngay def lu neex rek ngay gént parce que yaatu na si gis ngeen ko si batan am na table à manger chambre à coucher coiffeuse am na salon tamit boo xam ne bu yaatu la sept places juróom-ñaari place ak télévision ah am tamit li nga xam ne mooy armoire bu ndaw am frigo am cuisinière vraiment te ki euh, macha allah euh, kii daal ku ko am daal da ngay sant yàlla man nag li may ñaanal mooy kenn gagné yëpp gagné salon bi gagné salle bi parce que yëpp benn la dañoo nuro gagné oto bi vraiment am na koo xam ne bu fekkee mu ngi ci ñu dugal ko. teraanga Sénégal teraanga Sénégal teraanga la. waaw teraanga Sénégal teraanga ji de buñu koy. Fatima dafa bële ci mooy teraanga Sénégal teraanga Sénégal. amagul voilà ñu ngi am mbégte contentement di nuyu tamit groupe solution de Dias président Djibi Cissé porte parole Ibrahima Cissé Djibril Ndour Matar Pouy Ousmane euh, Ndongo Faye doyen Guèye Seynabou Sall Souleymane Diouf Idi. Euh, Idi Ndiaye Ciss ak euh, mboolem ku nekk ci mouvement bi ñu ngi leen di nuyu di la ñaanal kenn dalu jàmm waaye tamit euh, di am mbégte ak contentement bu mag ci ndigalu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides ci ndigalu Serigne Fallou Ibn Serigne Modou Fati Fati Khari Mbacke euh, Serigne Modou Mbacke euh, Lazamba moom ci boppam fondateur daayira Xidmatul Xadim ñooy amal cant le 31 décembre foofu ca Daara Muxti di wax nag na ci ñëpp teew ndax bés la boo xam ne bu am solo la waaye ni ñuy Serigne Mamor Mbacke mu Serigne Habibou Mbacke euh, caatu Serigne Mandoumbe ñu ngi koy nuyu ak Baye Cissé nga xam ne nag ma nga di def lu baax yal na ko defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram dédicace aux élèves de di leen ñaanal tamit kenn dalu jàmm joyeux anniversaire à Ami Sène madame Sey ta fille maman euh, bu Koutia moo lay souhaiter une longue vie dundal cent ans sans ordonnance euh, dafa xewi il faut def cent dix cent vingt cinq ans euh, joyeux à Cheikh Ba Messi ministre des impôts et domaines DG ah non DG domaine non non pas Cheikh Ba c'est le directeur de caisse de de moom moo nekk foofu di ko ñaanal tamit de la part de Tijou euh, qui fait moo koy souhaité happy birthday to you moom directeur de caisse de euh, consignation bi nekk ci biir réew mi joyeux anniversaire à bébé Fatou Gueye doomu euh, Maman Ndoye depuis Yoff de la part de Adam Sarr anniversaire à Pierre Fall c'était hier ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram di am mbégte kontaan Fatima waaw am na ko ne ci ligne bi allo allo oui allo waaw ah, kooku la la Aminta yow la Aminta Aminata Ndoye. foo ñu wooyee. maa ngi wootee Kër Mbaye Fall. Kër Mbaye Fall Aminata Ndoye c'est mademoiselle Ndoye ou bien madame Ndoye. mademoiselle. ah mademoiselle. <laughs> ravi de faire ta connaissance. mais mademoiselle Ndoye. mademoiselle Ndoye. naam. quatorze régions yi ban région nga bëgg a dugg jëli sa teraanga. Euh, quatorze régions yi. ban région nga bëgg a dugg dem jël fa sa teraanga am na am na am na Sédhiou am na Kaffrine am na Fatick am na Kédougou am na Dakar am na Ziguinchor maatam Diourbel Saint-Louis Thiès Tambacounda Louga Kaolack ak Kolda fan nga bëgg a dugg ma génn fële fa nekk jox la ko muy sa chance waaw man maa ngi dugg Kédougou lu tax nga taamu Kédougou parce que or nga fa nekk la <laughs> waa xaaral ma dem Kédougou xool man ma sa ndooy man ma sa waa kër Mbay Fall ñëpp a ngi ci jàmm. waaw ñu ngi ci jàmm bu nga am yow. Euh, man maa ngi am 27 ans. da ngay liggéey war a célibataire nga. non liggéeyu ma nag de. ah liggéey waaw mais liggéeyu ma. <laughs> oh. Kédougou la wax ah Kédougou. ah d'accord Kédougou. Kédougou ah damay dugg kon <laughs> Kédougou damay dugg Kédougou ah Kédougou waaw. waaw ok. maa ngi dugg Kédougou. waaw waaw. alhamdulilahi rabil alamin man hmm. ma seen Ndoye. fan nga dëkk ci kër mbay fal jumaa ji. seen kër moo jàkkaarloog jumaa ji wala ci biir jumaa ji nga dëkk. fan nga dëkk allo allo. allo ma ne fan nga dëkk ci biir jumaa ji wala seen kër moo jàkkaarloog jumaa ji. déedéet <laughs> déedéet après ko ñu jumaa ji boo jàddee rek noonu. boo jàddee. waaw tëli karo bi waaw. lenn ko xamal. Eh. bu fekkee amoo kenn koo bëgganteel continuer ci li nga nekk te xam ne na xolal xolal hmm. di nga solu 24 décembre di nga solu 31 décembre di nga noos te góor du la ko jox déedéet kay waa TFM ñoo la koy jox xam nga ñaata nga am eh. am nga 100000 francs CFA déedéet kay eh. ba pare ba pare man ma sa ndooy waaw mën ngaa gagné iPhone mën ngaa gagné par yor mun ngaa gagné oto bii mën ngaa gagné salon mun ngaa gagné chambre à coucher te mën ngaa gagné tamit beneen téeméeri junni bu ñu tiré dimanche. oh ay waay waay waaw kon ban télé moo neex ah, kon ban télé moo neex. ban télé mooy dundal ban télé moo xew. ban télé moo xew a xew. ban télé moo xew. ban télé moo neex. ban télé moo xumbu. ban télé moo bëri xaalis <laughs> te muy feeñ ci ñeeg voilà léegi <laughs> am na benn bërëxal boo xam ne moom laa def xam naa ne bu ko directeur déggee nañ may dàq waaye yàlla baax na si suuf laa ma seen ndooy ma seen ndooy de ah, ah na <laughs> voilà nee naa TFM moo neex ñun dañuy liggéey di jox téléspectateurs yi ñun di ko jox téléspectateurs yi mooy télé bi nga xam ne sama boru sama bor yi fayaguma ko ñoom la ñuy may xaalis yaay te bor yaa léegi nag léegi waaye léegi xam fu jëm dañuy seeti Ablaye Wade eh non xam naa ne am na ñu naan ku jaa mi saay saay waaye ba tey on benn problème Ablaye Wade nañu seeti am na lu xew seeti nañ dem dañ ma gàttal Ablaye Wade jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen sant di gërëm yal na yàlla defal jàmm ñi ma xulaloon ñëpp jubóog naa ñoom juboo naa ak Macky Sall jubóo naa madikeña juboo ak Moustapha Niass yàlla nag mooy def loolu léegi li may ñaan Sénégalais yi mooy ñu jéggalante te jéelale sama jubóog président Macky Sall du juboo intérêt wala juboo boo xam ne dafa am lu lalu suuf dama koy conseillé rek ni ma gisee ni ma gisee réew mi di doxe mooy jox sama xalaat ci li nga xam ne moom la Sénégal war a doxalee ndax réew la boo xam ne faw ñuy jéggalante pour mën a jéggi yu bëri yoo xam ne daf ñuy dal gis nga président Macky su ma toogaateeg moom dinaa na ko am na loo xam ne soo ko bëggee doxal nit ñi ci boppam dañu am ne nu ñuy xoolee sa doxalin ah. affaire courant bi na jéem a xool nu mu koy wàññee nu mu gën a gaawee te xale yi di manifester man xam naa manifestation lan la est-ce que xam nga ne boo autorisé ay nit ñu marche li ngay dépensé du bëri benn kaaru policier ngay ut def ci fukki policier ak ñaar benn lacrymogène mu ngi jar cinquante sept mille bu fekkee ne danga leen autorisé yow benn poli fukki policier ak ñaar kenn ay taxaw ci kanam ñeneen nekk ci ginnaaw ñu encadré leen ñoo duñu mer duñu sànni waaye bu fekkee da ko bañ yaa ngi génne ay plus de deux cent trois cent gendarmes te danañu sànni lacrymogène benn lacrymogène juróom fukki mu ngi jar euh, cinquante mille mooy juróom fukki junni waaw ñaata fukki junni ngay sànni loolu nag boo ko dajalee doo sànni say fukki junni te da nga bàyyi xale yu ñu mas parce que réew noonu la ñii dañuy kontaan ñii dañuy mer courant bi bu seeree am ñu génn pour marche ko mais bàyyi leen après nga waxtaan ak sa waaye bu fekkee ku jóg nga na ko ràpp tëj bu yàggee réew mi ngay tëj ba pare da ngay tëj sa bokk ñun ñi nga xam ne nag ñoo nekk ay mag Moustapha Niass Abdoulaye Bathily ñeneen ñi fi nekk ñoo mun a génn Macky Sall ci lii mu nekk nii parce que amutul waxtaan entre le peuple et le gouvernement ndox maa ngi tëj courant baa ngi coupé ah courant baa ngi yokk ndox maa ngi tëj xale yaa ngi jël gaal gi ba tey barki Demba Ndiaye fukk xale ak juróom ñoo gaañu kon ba tey y problème qu'on doit régler te loolu nag waxtaan rek moo ko mooy indi nañu jéem jéema fexe ba une solution pour sénégalais yi parce que tamit Senghor jaar na fi am lu mu doxal ñoom Abdou Diouf jaar fi am lu mu doxal ñoom ma jaar fi am lu ma doxal ak moom mu jaar am lu mu doxal bu yàggee nag day metti nañu jéem a oyofal rek jéem a dimbali sénégalais yi. Mm. yaakaar naa ne c'est la priorité. man nag maa ngi kontaan ci jubóo bi. ñi ma xooloon yëpp daal tàllal naa leen loxo di leen baalu àq nañu yàlla baal àq ñun ñëpp may ñu fan bu gudd wér gu yaram te ñu xam ne nag présidence de la république nii la ay problème Cissé loo nag du ma ci sori mais loolu day am dëgg la état moom da ngay am koo xam ne toujours day nekk ci yow mm. waaye day ànd ak dangar mais dee ko déglu bul ko tëjal say bunt parce que nga bàyyi ko muy wax say noon dañ ciy seconde pour di député bi neewoon doon seetaan nag affaire Pod et Marichou bi kooku moom dañ ko war a dugal ci pot ba pare ut suu su pome marine ko moom waaw parce que bu fekkee ne moom sénégalais yaa ngi toog di xaar ci moom mu défendre leen mu dem seetaan pot et marichou kon ñun la yeb waaye yàlla baax na ba nekkul ci opposition bi pot et marichou pot ak marichou pot ak marichou ñaari nit yooyu lan lañ la mën a indi lu dul mbëggeel rek ak déception ak trahison yooyu ñuy wax Pod et Marichou yow seetaanoo Kouthia Show seetaanoo le débat seetaanoo face à face par faram fàcce looy seetaan Pod et Marichou ana Pod ana Marichou loo ciy seetaan ci député Pod et Marichou kooku dañ ko war a jël tendre ko par quatre ba pare aaye ko seetaan télé ah. parce que tamit réew jël la ngay seetaan Pod et Marichou fuñ ko teg jël ko dugal ko ci pot jël suu suul ko moom ci boppam ndax pot et Marichou loolu du yoon réew mi nag nii lay demee il faut président Macky Sall wax ak ay député mais député warul seetaan pot et Marichou te nga am sa kër boo demee seetaan fa eh? nga toog assemblée di seetaan pot e Marichou mu mel ne ñoo dañ laa fay pour ngay seetaan pot e Marichou te Marichou am lu muy am am lu muy am lu tax ngay seetaan pot kan mooy pot kan mooy Marichou moo lu tax ngay ñëw seetaan pot e Marichou si biir assemblée nationale dañ ñoo yëpp mhm. ah dañ ñoo yëpp ki ko def nag nañ génne fotam na faa nga ñëpp gis ko lan mooy Pod et Marichou loolu ndeyu pot et Marichou yoo seetaanoo Kouthia Show loo xam ne dara lan mooy pot et Marichou. waaw pot nan la mujjee ak Marichou sax. Ah? pot fu mu mujjee ak Marichou. dañoo divorcé. ana Betty. Betty Betty tamit divorcé na. ma lakkale ba tey. waaw waaw beneen jabar. am na beneen jëkkër. am na beneen jëkkër. pot pot mu ngi saay saay ba tey. pot léegi sali marisu nga koy bëgg ba tey. na ngay def seen yooyu ñuy def. waaye biti nag saay saay la de. waaye ana pot ay marisu. <laughs> waaye man marisu. góor gi ya bari xam-xam. Farawat Njaay ya bari xam-xam. Ah. góor gi ya bari xam-xam. Farawat Njaay. koy bëggee sangum xeej yaa bari xam